mu ne ginnaaw bi nu sante sunu borom tabaaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu sant Serigne tuuba ci li ñu sant gi ñuy sant Serigne Touba. ci li nu sëriñ sunu borom boole ci waa kër sëriñ Touba nee na ku ànd ak sëriñ Touba rek yaa gën ku àndul ak moom léppam itam day jëm kanam rek waaye du dellu gannaaw mukk nee sëriñ Fallou Gallassi la mii sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax te di la xamal ni ngay door a ba ngay door a tàmbali bis bi. ba léegi. at mu ne. at gën a positif. bi day gën a positif rek. waaye ren nag. waaye bis bi dafa am maanaa yu baree bari. bis bi dafa dajale ay maanaa yu baree bari. yu baree bari. ba nga ko tuddee na bi soxna Baali. ni mu ni mu demee ci ak Soxna Baali ni mu demee ci kër Serigne Touba. ni mu demee ci njabootu Serigne Touba. ni mu demee ci njabootu Serigne Touba. nga xam nga xam ni laylatul qadri. noonu ko waxee noonu mu ko waxee léegi rek. jàppoon nañu ne. bu ñu gisatul soxna May. bu ñu gisatul soxna May. la laylatul qadar moom dootul mën a àgg fa mu daan àgg waaye gis nañu ne soxna Baali maamam tëbb na ko leer ba noppi taxawu ko ba fa soxna may bàyyee woon ca déwén sa rek def na lu ñett te la soxna may daan def organiser daayira yi nee na am na ku ko doon wax léegi julli ak koor yépp jaamu yàlla la waaye nag waaye nag jaamu yàlla ci bindeef yi dajale leen dajale sol ci ñoom leeru suñu borom ba bu ñu nee tey la laylatul xadar bu subaa ci la ci la mboolem daayira soxna Baali yi. di def seen xel. di defaat seen xel. ci waajalaat laylatul xadri déwén. kenn ku kenn ku nekk naan. lu tax daayira sàngam ëppale ma. lu tax daayira sàngam raw na. lu tax daayira loolu. soxna Baali. jigéen ju góor la. kon nag Serigne Fallou. bis bi bis at yi nga ko def yëpp. bis bii day at yi ko def yëpp. neex na sëñ Modou Roqe. neex na sëñ Modou Roqe ngi ko daan defal. waaye ren ko ci gënal. waaye nag ren ko ci gënal. ndax yow ump la ne. sëriñ Modou Roqe ya ak mu jëm. dafa mel ne. soxna May mooy sëriñam. daa nekk doo am ay bis yu mu fa demul. te su demee te su demee addiye ju bari lay yóbbaale nee na loolu wóor nañu bare bari kon nag boo ko mottalee yéeneem ci kër soxna may na lam ci yéene sax weesu na fii weesu na fii xam naa ne duñ ko mën def sax ba mu jeex ndax diggante diggante soxna May ak Serigne Modou Rokhaya libee ji nga xam ne libee ji nga xam ne wala wala sikki ji xam ne ji nga xam ne moom May daan waajal moom la soxna May daan waajal di ko di ko waddewaat barabu sëriñ bi di ko waddewaat sëriñ bi sëriñ da koo gàdd woon di ko def ay yoon ci at mi def ay yoon ci at mi ginnaawam bi ma nee soxna si damaa bëgg a sosoo loolu. bi ma nee soxna si dama bëgg a sosoo loolu. ci laa xam ne sikki la seere. xam ne nag sikki noonu la seere. mas naa koy jënd France. nee mas naa koy jënd France. ki ma àndal. ki ma àndal. ki ma. mu kii nee na ki ma moo ko ne kii di saa bu ñëwee di jënd sikki rek. lu mu koy lu lu mu koy dee. ko nee ko ci suuf laa mu ne ko nee ko ci suuf laa koy sotti. mu ne ko ci suuf nee mu ne ko waaw ci suuf la koy sotti waaye nag fa mu koy sotti nag nee na jaral na ko ko allahu akbar waaw waaw sikki soosee sikki soosee sëriñ Modou Rokhaya daan jot soxna may nee na keroog bi sëriñ Modou Rokhaya wàccee dem àjjana la woo sëriñ Modou Mahfouz ne ko sikki bii de moomu ko andiloon. ma doon ko def ci barabu ku tedd ki. ma doon ko def ci barabu ku tedd ki. ak mbàjj mii. ak mbàjj mii. kon nag. kon boo demee neel seex. boo demee neel seex. ko booleeg moom. allahu loolu. loolu. defe naa bis bii rek. defe naa tudde soxna baali bis bii rek. ak tàmbali la ci. waaye njaboot gi fi soxna Baali bàyyi. waaye njaboot gi fi soxna Baali bàyyi. noo ngi ñaan sunu borom may leen wu noo ngi ñaan sunu borom mu may leen wér. ak fan wu gudd. ba ñu mën leen cee fay bor boobu yi. nee na sëriñ Cheikh Abdou mi ngi lay siyaare bu baax. te di sant bu baax. sëriñ Fallou Galass Kaltoum nee na ngi lay siyaare bu baax. nee na doomi sunu sëriñ ba alxaaji Mouhamadou Lamine bëggoon ma lool nee na bëggoon ko lool doyloo woon ko li gën bëgg ci àdduna nee na li ma gën a bëgg ci àddunaat muy liggéeyal sëriñ Touba muy liggéeyal sëriñ Touba lim fi toog lim fi toog kenn ku xam na kenn ku nekk xam na ne ci saayir ci saayir li fi alaaji baara toog li fi waaye ci baatin. waaye ci baatin. liggéey na ci Touba. liggéey na ci Touba. liggéeyub ñetti téeméeri at. loolu di njàmbaar de. loo xam ne dellu gannaaw mukk. liggéey loo ma fii ci Serigne Touba. nee na liggéey na loolu foofu fii ci Serigne Touba. liggéey loo na ma fii ci Serigne Touba. liggéey loo ma liggéey loo ci nee na nag liggéey loo bi mu ma liggéey loo ci Serigne Touba. moom la ko sante bu baax a bi nee na moom lay sante bu baax a baax Alxaaji Mouhamadou Lamine. ndax sama àdduna man. ndax nee na moom day bëgg-bëggu àddinaam du ay oto du alal nee na mooy rek di xëy ci sëñ Touba di gont ci sëriñ Touba nee na sëriñ Fallou Galasse la mii mi ngi ko ciy dimbale ndaxte li tax mu mën koo tam li tax mu man koo tam dañ koo waajal dañ koo waajal ñaari kër yi jàkkaarloo nee na ñaari kër yi jàkkaarloo fii meew nu la bàyyi nee na fii meew nu la bàyyi kër Serigne Cheikh Diakhaté. di kë di kër Serigne Cheikh Diakhaté. di magi Serigne Cheikh Sylla mii. di magi Serigne Cheikh Sylla mii. di waajuru Serigne Fallou Galasse Sylla mii. ba ñu gàddaayee ànd ak Serigne Touba ak maam Cheikh Anta. nee na ba ñu gàddaayee ànd ak Serigne Touba ak maam Cheikh Anta. ba léegi ba léegi. nu. ñi ngi waajuram yii. képp ko am ab nopp tey déglu. wala nga fekkee. wala nga fekkee. da nga xam ni. fi leen maam seex Anta tegoon. fi leen maam Cheikh Anta tegoon. tegu fa woon sax doomi boppam yi. nee na way juru Serigne Fallou Gale Sylla mii. di Serigne Cheikh Sylla. fi ko Serigne Moudou Mamoun tegoon. fi ko Serigne Moudou Mamoun tegoon. tegu fa woon doomi yi. nag. mooy dox mooy dox ba ci sëriñ Fallou Gale yi la mii nee na bi mu gisee doxin wi muy doxe dafa am bis nee dafa am bis mu bëgg koo soññ ndax kër sëñ Tuubaa gu nekk dégg naa ko fa mu dafa yëngatu nee na ma bëgg ko cee soññ nee na génne ci archivam carte de visite boo xam ne Serigne Fallou moo ko moom. Serigne Fallou bind ca. Serigne Fallou bind ca. Seex Silla moomu dëkk Daaru Salaam. Seex Silla moomu dëkk Daaru Salaam. màggalu Touba. màggalu Touba. ak lu dul màggalu Touba. sama kees sama kër yëpp. sama kees yi ci sama kër yëpp. ak fu ma yilif. ak fu ma may naa ko mu dugg fa. naa ko mu dugg bu ko kenn tere fenn. suñu ci suuf. alxaaji Mouhamadou Fadilou Mbacke. nee na mu jox ko Serigne Fallou Galass Syll la ne ko gànnaayool kayit wii. boo demee Kasre. boo demee Kasre. buñ la bëggee xatal. buñ nga génne kayit wi. wan leen ko leen ko. feneen foo demit feneen foo demit. buñ gisee mbindum Sëñ Fallou. buñ gisee mbindum Sëñ Fallou. mu signé ko. mu ko. xam ne am am nga cër foofu. danañ xam am nga fa cër. ndax Serigne Fallou fépp la amum cër. waajtaayu nag. waajtaayu nag. Serigne mbay Longor mais. Serigne Mbaye Longor mais. wax na ko. wax na ko. maam Cheikh Anta. dafa jébbaloon léppam Serigne Touba. ci lay bay xalangu ci lay bi. ngir bañ lay bi. ngir bañ lay bi. yére sëriñ Touba. tooyal sëriñ bi. waaye dafa yëmutoon ci waaye nee na dafa yëmutoon ci loolu. nam ko jébbaloon boppam. nam ko jébbaloon boppam. jébbal ko léppam. jébbal ko na la ko jébbalewoon it ab taawam. muy sëriñ Mamadou Mamoun. nga xam ne sëriñ Touba ko yar. lu nekk ci moom. sëriñ Touba ko def sëriñ Mamadou Mamoun. sëriñ Mamadou Mamoun itam. yëkkati ab taawam. yëkkati ginnaaw sëriñ bi ginnaaw sëriñ bi. muy sëriñ Modou Rokhaya. muy sëriñ Modou Rokhaya. sunu mu jébbal ko sëriñ Modou Moustapha. mu mu nekk foofee. mu ba sëriñ Modou Moustapha xëy. ba xëy. boole ko sëriñ Ahmadou Mbacke Tindoodi yi. boole leen yóbbu gànnaar. nee na moo tax sëriñ Mbay Longoor di wax ne penc mii pencum sëriñ Mamadou Moustapha la nee na lu wér la euh, nee na sëñ yi nga wax kàddu yi nga wax ak bayit yi nga yëkkati te sëriñ Fallou defoon ko nee na dafa mel ne loolu rek doyoon na ci ñaan. waaye sëñ gale Galasse la. ñu ngi leen di seereel. ñu ngi leen di seereel. sant nañ ko bu baax a baax. ne sant nañ ko bu baax a baax a baax. kër Serigne Touba gu dara xew. te mënuma faa dem. nee na moo ma fay teewal. nee na dafa lam la war a def. muy laxasaayu. ne ca liggéey ba. nee na sëriñ Fallou Galass Syll mii moo ko wuutu ca loola di ko defal. liggéey bii nag. nee liggéey bii nag. liggéey yëpp rafet na. liggéey yëpp rafet na. waaye bii. waaye neex na sëriñ moo ko gën a neex. nee na moo ko gën a neex. ci weesu yëpp ci weesu yëpp. lu mel nii itam. lu mel nii itam. dajale bokk yi. dajale bokk yi. bokki jullit yi dajale bokki jullit yi ñu yend ci benn jant ñu yend ci di fàttaliku ñu baax ñi di di tudd yàlla di di jàngal quraan nee na sëñ Fall defe naa ne say at mayu la ko jagleeg suñu borom rek la ak nangoo liggéey Serigne Touba ku am looy werante nag ci ngërëmul sëriñ Touba. ci ngërëmul sëriñ bu subaa nga xëy woote. bu ba xam da nga am mbooloo mu toll nii wala déet. ba xam da am kilifa yu toll nii yi fi toog wala déet. kon nag sëñ Fallu. fii nga jaar. mooy yoon wi. wéyal ca kanam rek. ndax yi xam ne yaa ngi jaar ci yoon wi ci. njaboot bi. njaboot yar nga leen. jàng nañu alxuraan jàng nañu alxuraan ñi ci ëpp mokkal nañu alxuraan ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy njaboot gu jigéen gi nga xam ne ñooy njaboot gu jigéen gi nga bokk ak ñoom sëriñ Seex Silla kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk fa nga nekk fa nga nekk ak taali bi rek ngay bëgg ngay bëggee ngërëmul sëriñ Tuubaa rek nga fay wut ba ci sëñ Mat Silla mii ba ci sëñ Mat Silla mii sa yor sa rakk guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg mi ngi sàkku ngërëmu sëriñ Tuubaa mi ngi sàkku ngërëmu sëriñ Tuubaa gannaaw nag yéen gannaaw nag yéen seen bëgg-bëgg bépp seen bëgg-bëgg bépp mooy sëriñ Tuubaa mooy sëriñ Tuubaa doo woote lenn woote lenn sant sëriñ Touba lu dul sant sëriñ Touba fàttali ko mag ñu baax ñi liggéeyal ci sëriñ Touba nee loolu wóor na la wóor ne loo def ren bu déwénee da nga koy gën a man rek alhamdulilah soxna baali mii nuy ñaanal njabootam gii yal na leen suñu borom aar yal na leen suñu borom aar may leen fan wu gudd may leen fan wu gudd ak ak wér kilifa ga te maag moom nuy benn nee na yal na ko suñu borom yàggal lool mu yàgg taxaw njabootu soxna Baali gii Cheikh Abdou mi turandoom sëriñ Cheikh Abdou Lahad nee na day mbàkkee jël ga ci moom lu bare bari ndaxte liggéey Cheikh Abdou bari na lool ci yoonu murid bari na lool ci yoonu murid loo xam ne sax nit ñi ñu bari xamewuñ ko noonu loo xam ne sax nit ñi ñu bari xamewuñ ko noonu nee na muy gabon gi sëñ Fallou Gallas la doon wax yeneen ak yeneen. ak yeneen ak yeneen. ak waajtaayu màggal Touba. màggal Touba kat. màggal Touba kat. ku ne xam ne ne am na soppeeku lool. ndax waajtaay wee ko waral. ndax waajtaay wee ko waral. waajtaay wi nag. Cheikh Abdou mi ko organisé. kon nag kuy organisé Sëñ Touba. sama moom ku ko liggéey rek mu fay la ak wér nee na moom dafa am pay ñi mu wul màggal yii weesu yu mujj yii yépp sëñ Cheikh Abdou Bali mi moo ko moo ko organisé sëriñ Cheikh nee na te loolu man xam naa ci dara nee na sama njaboot gi di samay kilifa di samay jarbaat waa kër sëriñ Jili ñii sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal sunu borom may leen fa nu wul sëñ Abdou Lahad Mbacke ji lu seen waajur yéene woon. ba lu seen waajur yéene woon. ñu àggale ko ñu ko. soxna maskuratu. soxna maskuratu. soxna say. ak soxna say. soxna Maskoura moom Cheikh Sidi Muxtaar ak soxna say moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne eh, gis naa leen. bi nee na gis naa leen. kenn ku ci nekk. kenn ku def na ci yoon wi. def na ci yoon wi. yoonu Serigne Touba wi. yoonu Serigne bu rëy rëy kon nag yéen itam. baax gi ngeen am. ba déplacé wu. ñëw teewe lii. yàlla na leen ci suñu borom fay. lu kawe seen jot. njabootu daaru salaam. ñépp njabootu mbusoobe ñoom ñëpp lañ yendu te lépp bëgg lu baax rek kon nag maa ngi ñaan mbooleem ku fi teew Sëriñ Tuubaa nangul la ko amin boole la ci ñi mu gën a gërëm amin àdduna lu fi ëpp doole wala mu gën fee barkeel ngërëmul Sëriñ Tuubaa amu fi kon na ku fi teew yàlla na nga am ngërëmu sëñ Tuuba sun borom teqale laa ki bàkkaar ba boo fi jógee benn bàkkaar du la topp amin sëñ Fallu lii nga yàgg ko def lool ay at yu bare bare bëri yéen ñii ko jàppale yéen waa presse bi sëriñ bi nee na ñëpp moo leen war a sant ndax sëriñ Fallu Galas moom lu mu def moom la ko defal njabootu sëñ Modou Rokhaya gi njabootu sëñ Modou Rokhaya gi fu ma jëm ñu ànd ak man fu ma jëm ñu ak man buñ doon fanaan buñ doon fanaan it duñ mën a sonn nan duñ mën a yàkkamti nan ñoom tamit maa ngi leen sant bu baax kon nag sëñ bi eh, bis baa ngi nii eh, sëñ Modou Rokhaya lañ ko daan lañ ci daan fàttaliku lañ ci daan fàttaliku waaye liñ fi jàng ci kaamil ak liñ fi jàng ci xasaay lépp jox nañ ko soxna Bally Adi allahu akbar te boole ci fasal leen ci yéen njabootam bi ngeen gudd fan te wér yàgg fi lool ba li ngeen yéene ngeen àggale ko jërë ngeen jëf jërëjëf bu dee sëñ mu doxee juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom lañ ko jàngal bu dee ci xaside si ndiit yi li mu borom tawfeex moom lañ ko jàngal si ndiit yi bu dee soxna baali juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom-benn lañ jàngal soxna baali ci alquran si ndiit yi liñ ko ci jàngal mooy leelatul xadar lañ ko ci jàngal allahu akbar jërëjëf kon sëriñ bi nee na nag boole nañ li ñu jàngal sëñ Modou Rokhaya ak li ñu jàng feneen jébbalaat ko soxna Bally Hady allahu akbar jërëjëf <laughs> ñu tàllal sëriñ bi ñaan ñëpp tàllal tey wax amin amin amin amin amin amin jërëjëf